diggante sëriñ Touba ak borom Darou Mouhty def di lu sunu boroom dogal. ànd ba dafa yàgg ci seen diggante sunu boroom boole leen muy àndin wu dëggu dëgg woo xam ne jéggi na dayoo. ñaar la ñoo xam ne sunu borom daf leen a boole ci liggéey boo xam ne bi liggéey bu ko soob la nga xam ne danga mën a jàpp ne ñaari jëmm ñu bokk benn histoire. nit mënut a jëm liggéey dara lu ñëpp mën teg bët te amut ko ko jàppale faw am ko ne ci faw am ko ne ci li waykat boobu wax ni booba sax kenn xamagul yoonu murit ndax amagul jébbalu sax boo xewagul daam rekk ak borom koso kon mooy koo xam ne kenn lenn kenn niwu ci lépp sëñ bee moom Cerno loolu it moo tax yëmaliwut Sëriñ tubaa ak dara mësu ko booleeg dara nga ne li saahir ya bokk Bamba moom moom maam Thierno Birahim ci wàllu maam moo tax mu attan yan ba ñoom maam Maara mi nga xam ne ku ne bëggoon nga askanu ci moom dañu caa tibb tibb tibb ba doy la ca. diggante la boo xam ni ak cofeel moo ko lal boroom Darou Mouhty dafa seeyal ak dundam ci dundu Serigne Touba dafa jël léppam dugal ko ci biir Serigne Touba. yàllaa ko jagleel ci asal mook Bamba ñu bokk seen maam ci xadim fob yen ba. nga ne li saahir ya bokk ak Bamba moom moom maam Thierno Birahim ci wàllu maam moo tax mu attan yen ba. ñoom maam maara mi nga xam ne ku ne bëggoon ngaa askanu ci moom dañu caa tibb tibb tibb ba doyle ca ci seen yaari wet yëpp muy wu góor wi ak wu jigéen wi goo ci topp dafay ñibbi ca maam maaram ndax maam maaram moo am maam Balla Isa am sëriñ Morante Seli mu am ku tedd ki xaadimu rasul Cheikh ak borom Daarul Muxti waaye maam moo am sëriñ Soxna bu sa Mbàkke sëriñ ahmadu soxna Bousso Mbàkke moomu mooy way wayjuru soxna Absa Mbàkke ak soxna astawaalo soxna astawaalo ak soxna Absa Mbàkke ñoo bokk seen way jur sëriñ ahmadu soxna Bousso Mbàkke soxna astawaalo am soxna jaara mu am ku tedd ki xaadimu rasul Cheikh bamba soxna Absa Mbàkke am soxna Faati Isi Jóob mu am borom daarul mooti gannaaw bokk ga leen yàlla boole ñu bokk ma aram ci histoire bi ñu nekkee benn euh, muy xuru Mbàkke wala Poroxaan fu ci ne mën naa nekk histoire day am tuuti ay wuute waaye teen bii nga xam ne moo moom la soxna si ëpp lu mu soxna jaara ci xuru Mbàkke la ne te teen boobu mooy bi mu duggoon waaye teewut am na teen bu nekk Poroxaan boo xam ne root na ca waaye Poroxaan soxna si yàggu fa waaye li mooy teen yooyu bu ci ne mooy yiñ daa wax teeni kànka nga xam ne day naqaree roote te bu ci ab goj masee tab bi ak baag bi danañ am jafe-jafe lool suba ba ngoon door ko mën a génne yàlla baaxe soxna si booba sëriñ bi bu doon ci zaahir dang naan ndaw la lool te mi ngi ci gannaaw soxna si mu ànd ak soxna Faati Isa ñu dem di rooti diw ndox yàlla dogal yàlla nattu leen goj ba ak baag ba dugg ci teen bi ñu am jafe-jafe lool te booba ndox dafa jafe fiñ nekk di jaaxle ak nu ñu war a def sëriñ bi daal di jékki-jékki fudd ci gannaaw soxna si daal doon magum jëmm toll ni ñëpp mat sëkk dal di daal di fab loxoom dugal ci biir teen bi ba mu àgg ci ndox mi mu génne goj bi ak baag bi daal leen di jukkil ba seeni baagaan fees mu fabaat goj bi ak baag bi jox leen daal nekkaat gone delluwaat ci gannaaw soxna si bootu daal ne nag na ngeen ma suturaal loolu yi nag bi ko soxna Faati Isa gisee la ne soxna jaara yoroo doom man nag bis nekk say bis nekk tey féete woon na ma ak moom. Serigne caama sarfa jin la ñëw ci dunya ne leen sunuy bi doole sunu fukki fan ak ci weeru gàmmu di alxames gars yi ñëw di keroog la seex bamba mu mag ma faatu mamba sa faatu ak ma laatu bés bu mu gënee àddina dal di takku la bamba xam ni am na lam daal sakku euh, bu fekkee lu wér la nii bis bi ñu xeex xeexu coto mu xeex bi nga xamee ni tafsir ma ba jaxu ba ci la xeex ak le gouverneur Pinet-Laprade ci la feeñ kon mu ngi feeñ fanweeri fan ci weeru novembre 1865 ndax seen wayjur Serigne Mor Anta Sali ci weeru juin mille mille huit cent soixante cinq la ko tafsir Maba Jaxu Ba jëlee xuru Mbàkke yóbbu ko fi nga xamante ni bii mooy Poroxaan eh, ci Saloum kon eh, borom Daarul Muxti wayjuram mu ngi ko tuddee benn wàlli yu bu ñuy wax Ceerno Ibrahima Kan eh, Serigne Ceerno Ibrahima Kan moo ak Serigne Maam Mor Anta Sali ñoo bokkoon doon jàng ci sëriñ Ahmadou Bamba Sall ci leen moom moomu nga xamante ni ci Zahir moom la ñu tuddee euh, ku tedd ki xadim rasul euh, Cheikh Ahmadou Bamba. yàlla su borom subhaanahu wa kenn ku ne xam ne ne moo man lépp moo sañ lépp dara jaaxalu ko mooy borom kun fa yokkun waaye loolu kattanam googu sañ-sañ boobu ak nameelam googu ñu bari bari teewul wut na ay mbindeef teg leen ci wetam ñu di ko jàppale wut na ay malaayika wut na ay yonant mun na al awliya ñu ko jàppale ci li mu bëgg bu ko neexoon loolu mën a bañ am bu ko neexoon loolu mën a bañ am bu ko neexoon malakal mu tudd am ku war a faatu rek sa bakkan dem te kenn du kenn kenn kenn malaka du ko malaka du ko du ko jël si bu ko neexoon kenn ku nekk boo matee mesure rek xam li yàlla digle ak li yàlla li yàlla tere ko yoronte mën naa bañ am waaye bëgg wax nit ñi leen nit mënut a ñàkk nit moo tax ma def noonu kon ku baax ku ku fi ñëw ku ne faw nga am kenn ku nekk sa wet koo xam ne daf lay jàppale. sëriñ bi mooy wër néeg bi di tari alxuraan di ko di di ko xaar di ko xaaru ba dégg mu jooy rek mu daal di fab toqental gi xar permi jox leen ko ne nañ la njëkk ci gémmiñam bis ba mu juddoo ba takku ser baatam ba Cheikh Bamba daw njëkkante koog baayam ba keroog la Mamor Antena Cheikh Bamba sa ñaan nga nangu na ki lee yor yan ba xam naa ni booy doonay rasulullahi mooy sama Aliyu mbaa Omar billahi su Bamba doon Moussa mu dem Haaruna seeni biir ak yooyeli biir nuroo na. bu fekkante ñoom ñaar seen diggante yu am nañ nuroo ci wàll yu bari waaye am nañu woote ci wàll itam aussi euh, kenn ku ne xam ne ne Moussa bi muy dem dénk na njaboot gi ñeent fukki fan la fa def waaye bi mu dellu si waatee fekk na lu bari soppi ko fekk ñu tabax yàlla di ko jàmm Moussa àgg na ci bi mu ñëwee dafa mer ba àll yi ko suñu borom joxoon daf ko sànni. daal di poño rakk ji bu koy waaj a dóor waaw wootee googu am na diggam borom daaru bi mu ñëwee maam maam bu si waatee maam fekk na lépp lu mu dénkoon borom daaru waaw ko bëggoon na la na ko fekk lu ca a yokk yokk na ko ca lu ca defar lu mën a defar defar na lu ci mën a taar taaral na ko ca kon wootee googu am na seen diggante bu fekkee am nañ ko bu ñu bokk itam am na côté bu ñu wootee Moussa bi ñëwee mer na. ndax yu na ginnaawam mais bi ñuy bëgg na ndax la mbaawoon dara soppiku ci. Haaruna ab yonent la magam mooy Seydina Muusa moom mag ya ci wam moo sàkku ci sun borom yàlla def ko yonent yàlla defal ko ko nam ko bëggee. nee na keroog àlluwa jëm doon jànge lëfa taxaw ca kaw lu rëy di fàng te naa ko sooy amiru mooy wasiiru sooy xut bu mooy xawsu te moo lay sóoru fekkoon na bàmbay jàng saru xasas ba ca fa arsilhu mahi la ko gisee. yonent bi alayhi salaatu salaam Muhammad alayhi salaatu salaam daana tëdd ba guddi muy ñaan suñu borom subhaanahu wa taala naan ko Omar na ko tàbb ci diine lislaam nga xam ne position boo xam ne bu tàbbee ci lislaam dana ko dana ko def waaw Sëñ Tuubaa noonu la mel doon wut góor yàlla boo xam ne di taxaw ci wetam di ko jàppale ci liggéeyam keroog bi maam Cerno gën a àdduna la ko wéjurum wax ne ko li nga doon ñaan yàlla may na la ko kii Cerno Ibrahima yi moo la mooy moo la moo la jàppale. kon borom daarul muxti feeñ na bi mu feeñee rek way juróom daf koo dal di jël jébbal ko Serigne Touba Serigne Touba ko yar moo ko jàngal li nekk ci moom lépp itam euh, moo ko ci def. moo ko dalal ci loxol boppam moo ko jàngal alxuraan bu mokkal moo ko tërbiyaal boppam yar ko lu ñuy def dongab daara def na ko wet gu ne wëlbatiku na ko ci nattoo na ko nu ne ba xool ko ba mu doy ko budul ko jiital ci kanam. mu di njëriñ it wax na ni e, jële na ci waajuram mu wax ni Sëriñ Tuubaa téere boo xamante ni téereb xam-xam la bu mu doon jàngal borom Daarul Muxti bu ko ci jàngalee benn bunt daf koy wax ni ko li ci des mbokk baaxe ko mbokkam nee na borom Daarul Muxti téere boobee maanaam bunt ya ko Sëriñ Tuubaa baaxe sax moom lay gën a dégg ci bi nga xamante ni bii daf ko ko jàngal kon borom daarul muxti sëriñ Touba daf ko sol xam-xam bàmbaa ko jàngal alquran ak xam-xam jàng booloon ba am ndam mësula fanaan àll du génn daara day rafle tey yelwaan ba xëy am daraja loolu mooy cig ndawam lépp gis nga sëñ Tuubaa ko àndal mësula juyoog moom mësula juum ba tàbbi néeg maam Faati noonu la sëñ sëñ Moussa wax maanaam néeg soxna Faati bi nekkoon ci seen ci kër gi mësula juum ba tàbbi ca moo di ne bi fi seen jur bu baax wa nekkee noonu la ànd moom ginaaw bi nga xamee ne jóge na fii tam noonu la ànd moom ba tax na bind wax ne moom sëriñ Touba. Ibrahima allati lam yufaariq nii munsu si xarihi ilaa fi kabarihi Cheikh Ibrahim day musta taqalikoog moom ci ndaw ba ci mag. doon li ca ne Ibrahima allati lam yuxaalif nii fi si xarihi wala fi kibarihi musta juyoog moom itam kon loolu ab diggante mënu koo gën a leer. lettre boobu sëñ Abdou Lahad mool na ko mu ngi ci majmuwa bii nga xam ne moom la sëñ Abdou Lahad génne wax ne borom Darou Mouhty sëñ Tuubaa wax ne boroom daalu Darou Mouhty juyoowut ak man ci lenn ci ndawam ba cig magam amut lenn loo xam ni maa ngi koy def muy def safaan ba lépp lu may def rek na ma koy defee noonu la koy defee loolu nag mooy li ëpp solo ci seen diggante ñoom ñaar. ñaari wax yooyu. Euh, bu fekkoon nit ñi xam nañ ko daanaka dootu jar wax dara ci maam Thierno Serigne Touba ndax nitu yàlla ko toll ni Serigne Touba nga xam ne ñoom nit yàlla ñoo fi gën a naqaree déggool koo xam ne ca ngone nga ànd ak moom ba ngeen bokk màggat te mosu leen a werante mosu leen a juyoo mosu leen taxali ko loolu kon dañuy xam ne foofu euh, ndimbalal yàlla fa nekk. Serigne Touba it lettre yu bari gisees na ko waaye xaludul ay man nag maam Thierno rek la ko Serigne Touba wax. mooy sama përëgum day joor. nit ku ne bu ñu la doon laaj tey jii yow sa jëmm ji ana lu la gën a jubu boo doon def dara walla ana lan ngay jëfandikoo boo doon def dara da naan sama loxo ndeyjoor bi nag kenn kenn tuumaale ko sëñ bi da ko bind mu di mi ngi fi ba tey luñ bëgg-bëgg ceerno mënuñoo wax mënuñoo wax ba waxal ko lu sëñ sëñ benn isa ataaka adu di kitaabi yow ceerno mi sama përg përgum ndeyjoor waxtoo gisee mbind mii defal lii ma la kon moo ko tuddee. mu nekk loo xam ne lii lool itam lu yaatoo yaatu la mm, ñu cee lu bari loolu itam mu bokk ci liy wone ne mm, téye na ko. te defe naa lool yi sore na ci jëmmi doomu aadama. loolu mu wax ni mooy sama loxoom ndeyjoor moom borom Daaru Muxti moo ko daan jëfal. ànd ba dafa yàgg ci seen diggante. min asasin li masasin taqabbala wa bi siraatihi kafaani subula kon. Euh, sëriñ Touba ak borom Daarul Muxti musuñoo teqalikoo bi nga xamante ni bii seen way jur ñibbi na àjjana keroog bi ñuy miraas sëriñ Touba bu dafa wax ni. lu dul ceerno ak kaamil bi ñu fi bàyyi rek bàyyee naa ko njaboot gi ñaar yër laa soxla ci li mu fi bàyyi kon yàgg naa féetewoo ceerno. ànd la goo xam ni dafa kawe ma dafa kawe adduna dafa kawe mboolem lu nit di sàkku lu dul yàlla. bëgg gu tar moo nekkoon ci ci borom Darou Mouhty. géej gi nga xam ne mooy Serigne Touba nga xam ne ñëpp dañ cee ñëw wala dex di ci tànqase lu ñu naan di ci tànqase lu ñu fóot fóote seen i sër ak lu ñu fóote seen seen i xol ak lu ñu ak lu ñu fóote seen yaram kenn mës a ñëw ci buntu dex gi te fekk ko fi maam Thierno Ibrahima. bi seen waajur làqoo moom Serigne Touba borom Darou Mouhty la jël ànd ak moom dem Ndar. ci góor yàlla bu ñu doon wax sëriñ askamara ngir jëli ci moom wérdu xaadir keroog borom daaru muuti moo yenu junnim ngurdu sant sëriñ Touba sëriñ bi war ci fas wi borom daaru muuti yenu bagage yi sëriñ bi topp ci fas wi ba ñu dem Ndar yàgg nañu fa lool sëriñ bi wérdu xaadir yi mu doon jëli ci sëriñ As Camara joxu ko ko ba am genn guddi mu woo borom daaru muuti ni ko bu subaa dama bëgg nu xëy jàll borom daaru muuti ni ko lu la ci soob rek ba ñu xëyee la sëriñ As Camara woolu sëriñ Touba mu ñëw mu ni ko gis naa la bi kët ngay bëgg a jàll te yow yaa war a ràmm Soodaan di sowu jant kon na nga toog fii fii Soodaan kon na nga toog Mbàkke Bawol dal di ko jox wérdu Cheikh Abdul Xaadir Jilaani jox ko jàkk wa malaan ma ak derub Cheikh Abdul Xaadir Jilaani der boobee mu ko joxoon moom la sëriñ Touba jullee woon ci géej gi der boobee sëriñ bi def ko jox sëriñ Moussa Ka wax na ni mi ngi ñu dencaale borom darul mooti bi mu fekkee ku tedd ki xaadim rasul Cheikh Ahmadou Bamba àjjana fii ci eh, bayti loolu mooy lan mooy aji toppe ji dafa toppe te deselu ca dara ki ñi topp itam mu téye ko téye goo xam ne gi téye gu leer ñëpp la téye gu leer ñëpp la ci kaw leeral na ko wax na ko bind ko ñu xam ne kii kat fi ko teg barab bu wóor la ci moom. ba sëñ bi am jotu mën a jàngale la ko jàngal njàng mu rafet riwaayaat yëpp la ko jàngal bindiloo ko kaamil yu bari jàngal ko xam-xam yëpp fànni xam-xam yëpp ba muy géej mu doon ko fees dell la xam-xam te du way ngir warmaal sëñ bi gën a xam ñëpp sëñ bi te du wax ci sëñ bi ngir warmaal sëñ bi ëpp ñëpp sañ-sañ ci sëñ bi te mosu koo jëfe ëpp ñëpp mën man ci sëñ bi te mosu koo wone kooku mooy Cheikh Ibrahima Fati moo tax nga dégg sëñ Moussa Ka wax ñaari bayit yu am solo yoo xam ne yu ma dugg la dafa wax ne te lu mu lu mu am jox ko moom borom daal mu waxti te lu mu xam wax ko te lu mu amut yéene ko baa mu am ko te du ko laaj te lu mu ko laaj mu jox ko te lu mu soxla Cerno Faati faj ko. saaka mu ni sëriñ bi wax na ni yéem naa ko ngir lim xam ci man te waxu ko ak li mu xam ci ay araf te jàng ko. xam na ci man loo ni kenn xamul ko am na ci man loo xam ni kenn amul ko yim naako ko ngir la mu xam ci man te ko ak la mu xam caay arab te jàng yim naa ngir xam-xam ba lu bare bare xam ne maay baarul uloomi maa sori yim naa ngir. lu ma la jox ma jox ko yéen naa ko lu ma saa man la koy jox maa ko gënal boppam te ku mu jox du la ñaax ci la sëñ bi daal di taxawal yoon wa maanaam ci la sëñ bi taxawal yoonu murit dégg nga sëñ Moussa Ka mu ni njafal nga jàpp ceernu jiite daara ja Cheikh Ibra Fall jébbalu ànd ak maxraja kon bi sëriñ bi sosee yoonu murit Mbakke Kajoor ci 1883. Mbàkke Kajoor la jëkka laawoo sàkket di sàkketa Seex Bamba bul ko bul ko sikk booba maa nee na maam Thierno nga tool ci fukki at ak juróom di door a mokkal alxuraan foofa la ko tàmbalee sancal na kër sëñ Tuubaa Bawal. borom Daaru Muxti sancal ko fa mu bàyyi ko fa ñëw Daaru Salaam mu sancal ko ko dégg nga Serigne Moussa Ka mu ni Daaru Salaam noo ko sancal Bamba ca Dasasin feral Serigne Masamba sëriñ bi am ñaari at. Darou Salaam di wër pàkk bu tedd bii di Touba. amul kenn ku ñeme ne keroog bis ba may jébbalu si cer maam Thierno nekkul ak Serigne Touba amul amul maam Thierno it ba mu gane àdduna fa fa fa fa Poroxaan yor fa Poroxaan ba ci yor bi ñu ko bi ñu noppee gis fii ci Darou Moutay. maam Thierno def na nangam joo xam ne ku bon bopp a koy def mussa kon nag dama yaakaar ne dex googu koo xam ne noonu nga demee ba noppi nekk fi noonu nga fi nekke euh, yaakaaruma ne euh, léegi sax jamono ji dafa am lu ci xew loo xam ne ndax gam-gam li dafa bari waaye wax dëgg yàlla ko demee noonu nekk ci dex gu demee noonu it gam gam-gam li ko kenn yàpp ko la yàpp ko la ba tax na maam Thierno ak sëriñ bi moom. Euh, seen day day lépp Serigne Touba Serigne Touba di léppam. sëñ Abdou Lahad it nettaliwaat ma ni Ceerno di gëm ak Serigne Touba dafa sori woon. Serigne bi da koo woo bis mu dikk muy waxtaan ak moom ñoom ñaar yàlla benn naar ne fa ne benn naarub Serigne na fa ne sëriñ bi wàññi fukki junni yu ngor jox naar bi ni ko boo dellu seewaatee déwén ci waxtu wi danaa la ko joxal ñu tàggatoo mu dem waxtu woowee ba mu daataa dellu si Serigne bi wàcc na. mu dellu si waat naar boobu dem daaru musti gii seet si ci Cerno Birahim ba mu dikkee teral ko teral ko teraanga ju jéggi dayo ba muy yeewee ko mu wàññi fukki junni teg ko ci loxo waxu ko dara bàyyi ko mu dem naar ba dem ba ca déwén sa mu dellu si waataat ba mu dikkaatee daarul muxti seet Cerno mu dalal ko ci néeg ya gën a fegg lam ca roon nam ca roon doxee doxeetu ca leen mu yónnee ndaw ni ko nee ko damaa bëgg a yeewee ko mu ni ko ñëwal mu dikk mu ko man damaa jaaxle daaw ñëw naa fi man nga dalaloon di ma teral yëg fukki junni jox ma ko ren nga ren nga bëccingal ma mun ko bëccingalu ma la de daaw ndigalul suñ tubaa laa doon def ndax musta waxanteeg man mbinde fekk ko ba sëriñ bi wax ak man nga toog rek laa xam ne lii mu lay wax man la ko def loo daaw ndigalu suñ tubaa laa doon def lan ren nag sarax laa seq yow sarax nag loo man <laughs> loolu yi Cheikh Abdoul Ahad ma ko nettali ci diggante Thierno Ibrahim ak suñ tubaa nga xam ne bokk na ci li ma doon wax ci li nga doon wax ko wax sax di ko fàttali ci saxbaan naan saxbaan day weeru borom da mu am saxbaan joo xam ne mi ngi nekkoon ci Baxos sëriñ bi dafa wax ne dafa doon ñaanal borom Darou Mouhty di ko sàkkul ci boromam loo xam ne dafa mujj mu xaw caa it ni mu ko waxee da caa sikk sàkk ndax toog na lu yàgg te gisul la ca bokk ba mu ba saxabaan ja dellu see ca déwén see di Jaxasin mm, yàlla dogal borom Darou Mouhty fanaan si bi mu fanaan see sëriñ bi nee na bi ma jullee suba ba noppi. lañ ma door a won nag ñu déy ma fa nuu diitu la wax maanaam ñu déy ma won ma ne ma li nga ko li nga ko doon ñaanal Ibrahima kat daaw co saxbaan saxbaani ren jii lañ ko nangu nga xam ne téye na ko ci wet yépp aar na ko ci wet yëpp gis nga keroog bi ñu delsee pataar ci ñetti dërëm yooyu ñu doon wuti benn naar bu dëkk Mauritanie bokk ci tandaxi yoon yi wala bokk am ca bokk ci wàllum seen wàllum nijaay amoon téere bu mu lebal Sëñ Tuubaa Fatxul Aqfal sarxu laamiyatul afaal bi ñu jàng fii Sëñ Tuubaa gis ko bëgg ko lépp ko ci naar bi naar bi ne ko dañuy ànd kon nu ànd wër kajoor ak bawal ak njàmbur sëñ Musaa Ka nettal na ko sëñ Madu Lamin Jóob Daga nettal na ko ci an-Nubzatul Mubaaraka lu gudd gudd la waaye téere boobu xam nga Sëñ Tuubaa daa ànd ak borom Daaru Muxti mi ak sëñ Masàmba Jóob Saam ak naar ba ñu wër kajoor ak bawal jawal ak ak njàmbur mënuñu fexe ba am ñetti dërëm yi bañ delsee gàttal gi rek mooy waa dëkk bi dañ leen doon reetaan di wax naa ñoom ñi ngi fi jóge bu yàgg ba léegi mënuñu feex ba am ñetti dërëm ngir fay naar bi waaye gis nga la ca sa borom dal wax ti wax moom la bëgg a indi rek mooy dafa wax ne maam Thierno naa Cheikh Bamba noong ñuy reetaan naa duñu fay bor danaa ko yalwaan wax ju rëy ngi noonu mooy kon loolu lépp day tegtal rek bëgg koo xam ni dafa sax ci borom dal mooti. Euh, am na xisa boo xamante ni Euh, surtout sëriñ Mor Absalo moo ko nettali mu wax ni sëñ Modou Lo Dagana bi mu fekkee sëriñ Touba Mayumba ca euh, Gabon dégg nga sëñ Moussa Ka mu ni xëy na kokki guy bisub talaata nam ca géej ga ba ñu naa xat xatmaata ba weer wa dellu see déwén ak bis ba la doog a seeru Bamba ngir pas-pas ba sëñ Modou loo Dagana kere bi mu nuyoog sëriñ Touba ci Mayumba di jàmmanteeg moom sëriñ Touba ni ko ana Cheikh jublu ci maam Cheikh Anta ba ko ba muy ñetti yoon ni ko ana Cheikh Anta sëñ Modou Lo Dagana ni ko manga nga fa Serigne day gërëm naa ko ko waxee loolu sëñ Modou Lo na di wax ci xelam ni waaw maam Thierno mi mu bàyyee njaboot gi ak yoon wa nag sëñ Touba ni ko Modou mu ne ko Mbakke mu ni ko Thierno moom mu ngay xalaat day man may moom ci loo xamante ni sëñ Modou waxu ko da koy xalaat rek sëñ Touba ni ko Thierno moom day man may moom kon nga gis li ma waxoon ni ni ab mason di jël turel mu doon ab jëfandikaayam wala peel ba muy gasee loolu Serigne Touba ni na moo doon sama loxol ndeyjoor da doon jumtukaayu borom da euh, borom Touba boo xamante ni bii moom la daan euh, jëfloo ndax ba mu mënagul a jëf moom euh, borom Daaru Muuti soxna Fatou Issa Diop moo daan jëfal Serigne ndax xam ngeen ni Serigne bi lu xalaal rek lu dagan rek la bëgg di jëfandikoo soxna Fatou Issa Diop moo ko ko daan jëfal. loolu tax na bi Serigne bi. nekk ak sëñ Mor Anta Sali te ñu bari umpale ko muy faral di wéet ci àll bi dina ci ay garab du jaxasoo nit ñi ci lay waxee xasidaam googu naan xaaloo safihun li sarfi anhuma basari ñu bari nee nañ ab dof la waaye bu fekkee xemmem sunu si yenent bi ak wéet ak ñeemu tasawifoo ne yi loolu lañ ma jàppee ab dof loolu dof googu sant naa ci lool te ñaan bu jëm kanam noonu ñu ko jàppee woon nga xam ne wuti naa nit ñi ay gis-gis wuti nit ñi ay bëgg-bëgg ñu jàppee ko loolu. tax na ñu bari amuñu woon ci moom soxla waaye soxna su tedd soosu moo ko daa fekk foofu ca ker googa fa daa toog léeg-léeg mu ñëw nuyoo sëñ bi fay ko mu egsi mu ne ko lu doon say tànk mu ne ko dama leen andil wogg wii rek mu ne ko loo ci jublu mu ne ko xanaa xam ne boo ko soxlaa rek man cee xewlu ndax xat na te daara ji dafa bari mbooloo te a jaxasoo nit ñi ma bëgg boo tee rek man ci jariñu loolu ngeen déggoon sëriñ bi di wax ne Cerno de woggu ndayam rek laa koy fay ci àddina lu ngeen gis ci àdduna lu mu rëy rëy rus na maa fay nit dara ci àddina waaye woggu ndeyam war rek lañ koy fay la ma ko liggéeyal ak la ma nar ci moom àllaaxira lay feeñ xaju ci àddina kon diggante Serigne Touba ak borom Daarul Muxti daal mooy Serigne Touba bu ma saana ñaan sunu sunu borom da koy may ba noppi doog ni ko ñaan ma kon Serigne Touba sunu borom moo ko may borom Daarul Muxti mooy modèle modèle bi Serigne Touba liggéey teg ko ci kanam murid ne leen kii ni mel laa bëgg ñëpp mel ni mboolem loo xam ne ab taalib bi war na ne mel dajale maam Cerno Ibrahima muy jëmm joo xam ne gannaaw yonent bi sallallahu alayhi yàlla bind ne moo gën ci bindeef yëpp ganaaw yonent bi keneen koo teg buñ booleen bindeef yëpp ne Cerno bindeef yëpp ak sëriñ bi loo ci xam buñ leen day wax ne buñ leen boolee ñoom ñëpp bëgg gi ma bëgg sëñ bi ñi ñëpp nañ ñeen boole ci benn balance sëñ bi war leen. ku dul yonent bi rek ceerno laa ne ku dul yonent bi sëñ bi gu gënal ñooña mindi fi jamono jëpp moo tax sëñ Tuubaa moo ko seere lool xam nga mënoon naa nekk sax ay wax yoo xam ne dañ koy wax nii du dem waaye sëñ Tuubaa moo ko bind ci loxoom ne ko ayyuhal madbuuxu bi xubbinaa mooy yow yemoo ci bëgg ma rek waaye dañ dañ dañ laa faat ci bëgg ma maanaam bëgg sëñ Tuubaa bu doon ab paaka dañ la cee rend yow ayyuhal madbuuxu bi xubbinaa Yeah! bi sëriñ bi di dugg ci àll bi di wër pàkk bi dafa bàyyi woon njaboot gi ak borom Daaru Muxti foofe ci Daaru Salaam dégg nga sëñ mu ni bi sëriñ bi di wër Touba am na fa fetto fa si gu rëy ga luy bëgg a mat weer te gisul waa kër ga Ceerno yoroon waa kër ga ak dongoom ya di jiite daara ja di jàngal doom ya loolaay lalub xalifatul xadimi Cheikh Moustapha al Mbakki yu moomat doom bi kon Cheikh Moustapha al Karim bi muy feeñ fekk na waajuram di dugg ci àllub Tuuba bii nga xam ni dem na ba euh, sori lool doon wër pakk bi kon bi Cheikh Moustapha feeñee borom Daaru Muhti moo yónni ndaw mu dem ci àll bi di wër sëriñ Touba ba gis ko xamal ko ni ko kat gan wut na ko fi dégg nga mu ni noo ci yónni xonn ndooy ca yoor yoor moo ko yëgal Cheikh Bamba kooko lay góor bamba ni Cerno na nga ko wax boroom saam maa ngi ci xalwa maay defar fileeg saam kon Cheikh Moustapha mu ngi fee ñetti fan ci weeru tamxarit ñi ngi ko jox aw turam fukki fan ciw tamxarit di yow ma Ashura sëñ Moussa Ka nee na bisub tuddam ba yow ma Ashura la bamba gis tuuba mu leer waraa li lay taxoon Cheikh Moustapha moom Touba leeru mbirum juddoo ma feeñal Touba eh, moom borom daaru Touba te am fa ñetti at 1891 Cheikh Mouhamadul Amin moom Serigne Touba feeñ Serigne Touba ni mag ñi li ngeen fi doon wut kër gan gi indil na leen ko kon mën naa leen a yeew wi ngeen dellu ba mu yeewee mag ña ku njëkkoon a topp ci la waxoon borom Darou Mouti ni ko mën ngaa ber sa kërug bopp nag di xëyal sa bopp di gontal sa bopp ndax sant naa la cant goo xamante ni ngi xarab dootu ca topp ca mooma at la ko digal mu am kër te amuloon sax néeg te dëkkee kër kër.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 waajuram nee na ko Serigne Touba yewe na ma ba tàyyi bind na ko jox ma wax na ma ko ma dégg waaye saa bu ma ko waxee rek ma ni ko yaa ma njëkkoon a xëy te wàccoo kon du ma wàcc Serigne Touba pàkk bi di Touba juróom-ñaari at la ko sunu borom mayoon mu dëkk ko fa moo tax ci kooru 1895 mu dugg xalwa fii ci Daaru Xuddoos sallallahu alayhi wa sallam feeñu ko mu waqanteeg moom la mu waqanteeg moom loolu moo tax ba mu waree mu yebal borom Daaru Muxti Jolof mu dem sañ ci pàkk bee nga xamante ni mooy Mbakke Bari foofee fa la borom daaru Muxti ak Serigne Touba nekk ba Serigne bi bind lettre jox ko ko ngir mu yóbbul ko ci gouverneur général ba ci le 10 août 1895 dëppoo woon ak fukki fan ak juróom-ñett ci safar di bi nga xamante ni ci la Serigne bi génn bàyyee borom daaru Muxti njaboot gi ak taalibe yi ngir dem ci géej gi. ci diggante maanaam taxawaayu borom Darou Mouhty ci njabootu Serigne Touba gi itam euh, gis ngeen bi sëñ bi demee ci géej gi te tawat tàbbi ca la borom Darou Mouhty def waaye la war ci njàng ma itam Cheikh Moustapha mii sëriñ Serigne Touba dégg nga Serigne Moussa mu wax ni maam Thierno Faté ko dalal baasina ba bàyyi ba delsee la ko def Yacine sëñ Modou Moustapha. bi muy bind ab kaamilam booba way juróom mu ngi Gabon Abdoulaye nduur moom nga xamante ni moo indi woon leetar yi sëriñ Touba joxe woon boroom Daaru Muxti ndigal ni ko na sañ ci pàkk bii di Daarul naa nekk diggante Touba ak Mbakke te ñu sañ ko ci 1900 Abdoulaye Ndour moomee ba muy dellu moom la boroom Daaru muuti jox ay addiyaam ak kaamilub Cheikh Moustapha El Karim sëñ Moussa Ka nee na ba Abdoulaye di dellu min Conakry maam Thierno jox koy addiyaam ak a bari booleeg mbindum taawam ba am di Moustapha Cheikh Bamba yër ko muuñ ni Thierno xat oo fa sëriñ Saliou booba dafa wax ne bàyyi Thierno de bi sëriñ bi dem ci géej gi lépp lu mu yoroon moom la ko dénk ci loxoom la ko bàyyi mboolem njabootu sëriñ Touba gi la sëñ bi def ci Thierno lépp moo ko def ñoom moo leen yar moo leen jàngal ba ñu yaru ba ñu xam mel nañu war a mel. te loolu sëñ bee ko defoon ci moom digal ko mu def ko ci ñoom te ña ci jiitu mooy sëñ Modou Moussa sëñ Fallou sëñ Baara te booba jamono ji gën naa jafe ndax sëriñ bi dem na ci géej gi te xam ngeen ne ci circonstance yooyu ko xamut sëñ bi lool rek sa pas-pas dana wàññi ko ndax am nañ juróomi at yoo xam ne kenn xamut ci sëriñ bi dara kenn. maanaam pas-pas rek leen di wéy ci moom waaye amoo ci moom benn benn benn xam-xam te ñenn ñi wan nañ leen ne sëñ bi génn àdduna ba seen pas-pas tàmbali yorom waaye foofu la gën a fonke doomi sëñ Tuubaa yi di leen jàngalal boppam fas yéene am jommi nag di liggéey ba du soxlaal kenn dara di am sàqi fukk fukki sàqi fukk di ko bay warul leen it la leen sëñ bi waxoon ci moom mu warlu ko mooy sëñ bi newoon na ko Ceerno gone yii di ñett yi bum mu leen dal buñ saalañ bu ñu rafle bu ñu wax ca kaw kon yarub muro atu mooy loolu ndax boo boo ñee ab dof rek ngay nur boo yuriti yéele noonu booy wax ca kaw suñ bokk yàlla yi waayaan ngay nural <laughs> kon li bëggoon mooy ñu yiw te dal te duñ xiif duñ mar duñ rafle te loolu Ceerno def na ko ci ñoom. njaboot nga bàlleen ci réew loolu bal loolu nga teg ci loxo. loxo yi leen teg faw nga wóolu nga wóolu ko kay jikkoom doy la sëñ Tuubaa jikkoom la def ci seen borom daaru jikkoy sëñ Tuubaa moom la def ci borom daaru loo tax mu wóolu ko ba bi muy dem mu jël njaboot gi teg ko ci loxoom sëñ Babacar nit ki ba la jikkoom doyut ab yaram doyuloo doo ko jox sa njaboot boo jëloon sa doom bu ndaw jox ab chinois mu yaral la ko saa bu màggee ne la bir ni amut ab Sénégal chinois nga am boo jëloon sa doom ju ndaw jox yaral la ko boo maggee ne la biir ne amatu ab Sénégal ab américain nga am kon Sëriñ Tuubaa dafa yar maam Cerno Ibrahima def li ci moom ci moom ci maam Cerno Ibrahima juru njabootam teg ko ci loxol maam Cerno Ibrahima ngir lu mu ci moom mu def ko ci njabootam. loolee mas na ca net li lu mel ne li sëñ Xalil Mbàkke di wax ci téereem boobu góor yàlla gi wax ne sëñ Saalihu moo ko wax ne ko borom Daarul Muxti day at mi Sëriñ Tuubaa demee ci géej gi jaaxle fu mu fanaan ak njabootu Sëriñ Tuubaa gi sóob na ko ci mu àgg ci fanaan cim sàq moom njabootu Sëñ Tuubaa booba tubaab ku amul moom jafe-jafe ñëpp lay daw kenn du la mbokko Sëñ Tuubaa ci moom wax ne wa minhum man in ra'a nasraani yaxsibuhu min malaayika rahmaan nit ñi dañoo ragaloon tubaab ku ko jàpp ku gis tubaab da nga jàpp ne malaayika nga gis coono yooyu yëpp nag mu nekk ci bi Sëriñ Tuubaa ci géej gi bàyyi ko ak njaboot googu itam taxawaay bu mat sëkk moom la taxaw ci ñoom ba looloo waral keroog bi tawat tàbbee ñooñ borom daaru muuti làqu magam làqu rakkam ju jigéen tawat juróom-ñetti nit faatu waxul dara waaye bi waa kër Sëriñ Tuubaa yi tàmbalee jël ci wéradi gi Cheikh Mouhamadou daal di jël ci dal di faatu siñ Mouhamad Moustapha jël ci sëñ Mouhamad Lamine Baara jël ci sëñ Moussa nee na keroog la Ceerno masa jooy ci duniyaa maanaam keroog la ronqoo ñi borom Daaru Muxti masa génn ñu di ko gis ndax boroom Daaru Muxti dadul dadul kuy jooy ay joor ay jooyam damay wax ne lu yéemu la ci ci ci ci ñi ko xam mbooleem ñu koy ñi ñi koy ñi koy tagg ak ñi bind ci moom dañuy firndeel njàmbar ak ñàkk dellu ginnaaw ak dara dara du tax mu ras bëtam loolu sëñ sëñ Paate Jeng wax dara du yóbbu aw fitam dara du tax mu ras bëtam wéetaay du wàññi ak ngëmam maam Cerno jenn jëmm la sëñ Moussa gis nga dafa wax ne mësula rët mësula tiit du jaaxle maanaam kenn xamul ci ak jaaxle ñimee ñimee ñimee ba mel ne ak gar ak ak gar te waxewe xatt ba mel ne xet xettar ci beneen bayit sëñ Mouham sëñ Maxtaar moom seex sëñ Mahmoudan Koso gis nga bi mu koy tagg dafa wax ne mulimmaatu dëhrin laa tuzaxzihu azmahu walam yura yow man shaakiyan usra dëhri yi masalan lu jamono metti metti di nga mënta dindi lu toll ni tarfatal ay ni ci dogu borom moo Muxti dafa amoon dogu te dëgër moo tax la ko tax a jooy loolu lu rëy la cofeel gu rëy moo moo ko dal keroog ba mu jooyee ca ca ca ci wéradig waa kër Sëñ Bamba yi da teg ñaan sunu borom tabaaraka ko taala ne yàlla maak saa doom yi ak saa ndey ji jote ñu doom yi bàmba yi réer maanaam ñaan sunu borom ne ko man sama jëmm nga jël ko jël jëmmi soxna faat isa mii sama wayjur jël jën jëm mii sama njaboot gii ma jot a am te nga bàyyi fi njabootu sëriñ Tuubaa gi bañ bañ del si loolu foofu la cofeel ak bëgg foofu la foofu la yem suñu borom dogal na sëriñ bi bi mu demee ci géej gi ñetti at yu njëkk yi kenn xamul ci moom dara ba taxoon nañu def ay pexe ngir bëggoon borom daaru muuti tasaare njabootu sëriñ Tuubaa gi tax ñu bind ko ab lettre ni ko sëriñ bi nekkatul tasaareel njaboot gi lettre boobee ba ko borom daaru muuti jotee mu def ko tàngoor waaye juróom soxna Faat Isa Jóob laaj ko lu xew mu ni ko dañ maa wax di ma sëriñ bi nekkatul soxna Faat Isa Jóob moo ko ni sëriñ Touba moo ma ne woon moo may nungu ci màmmeel te maa ngi nii di wax ak yow te sëriñ Touba lu mu wax alxuraan la kon waxuma la ni mi ngi ci kaw suuf waaye boo ko sàkkoo gis da nga ko gis. digganteem ak ñoom njabootuk sëriñ Touba ci nekkuk Serigne Touba noona la woon ginnaaw Serigne Touba itam noona la woon te lépp loo xam ne li sëriñ bi santoon na ko ci bi mu nekkee ci tukki bi jëfandikoo ba mu mat ci ci biir njaboot gi. bi nga xamee ni itam mujj na ko ginnaaw it ci liñ mën a gis booba itam eh, li mu war a taxawee lépp taxawee na ko ba mu mat sëkk. mu liggéey ci Sëñ Tuubaa liggéey boo xam ni manees na ni kenn fekk ko ca liggéey bi nag dafa yaatu ndax li mu liggéey ci teewuk sëriñ bi li mu liggéey ci gannaaw sëriñ bi kuy seet sax man nga ni moo gën a rëy li mu liggéey ci teewuk sëriñ bi ndax sëriñ bi bi mu fiy jógee jamono ji lëndëm na lool jamono ji xat na lool. te ñëpp jaaxle nañ ndax sa sëriñ Tuubaa mi nga xam ni gisatuñ ko. ba nga xamante ne euh, sëriñ Modou saa ñëw na njaareem ña jóge jóge ña ñaaxeem dikk fekk xew-xew boobu am lam jëkk a def mooy wut oto boo xam ne da ko ne na nga dem Daaru Musti ba nga ne sa borom Daaru Musti sëñ bi ne nañ daje Tuubaa. ak ñeneen yoo yoon ci yoon wi sëñ Daam Abdourahman ak sëñ Mandoum beeg sëñ nangam nangam nee na sëñ bi nee na ngeen daje Tuubaa mi ngi dem sëñ bi noppalu na nekkatul te it mënut a ñàkk a dem Tuubaa ba ñu ñëwee sëñ Modou Moustapha bañ agsee nga xam ne agsi nañ dafa daal di génn ndànk rek bàyyi ak maam Thierno lépp waaye nag booba fekk na àdduna si xam ngeen ko ni mu day bari ay ay ay yëf yëfaan ay ay ay njaxas ak ay dugg ak génn ak def yëf te nit wan ko boppam dafa yombo nit wan ko boppam dafa yombo waaye sa ci ci ci ci gàttal rek na nga xam ne la maam Thierno taxawa woon sëñ Modou Moustapha taxawa woon ko ko ca ca baddalib sëriñ Touba ba ba ci dajale mbooloo mi ba ci taxawu liggéey bii nga xam ne moom leen sëriñ Touba ba tale woon taxawaay yem ca taxaw bu ko ci taxawul woon dara du mën a sotti ndax bari aana ñu daan dang daaye aka defee ne leneen dana <coughs> dana mën a am lu weesu sëñ Modou Moussa di lépp waaye bañ ci seen maam na moom fam na sëñ Modou Moussa def ko muy lépp rek booba lañ xam ne loolu mënut a ñàkk ñëpp soog a ñëw. mu taxaw nag te la ko suñ tubaa doon doyloo wétali ko yàlla dëgërloo suñ tubaa taxaw taxaw taxaw temm nag ci ci ci yoon wi taxaw. loolu danaa ci nettali xese boo xam ne Cheikh Abdoul Ahad moom ko nettali woon ci ci te te loolu ku xam danga xam ni loolu mooy fondation yoonu murit ndax sëriñ bi dafa wax ni bi nga xamee ni seex seexal xadim wàcc na ñu dem ba war a leeral gannaaw dafa yónnee ndaw ni ci kër gu mag gi gi ci Daaru Xudóos ci Cheikh Mouhamadou Moustapha ni na ma fa ni ñii may lim na naa leen fa fekk luy tudd rakk ña ca mag naa leen fa fekk luy tudd doom ñette mag naa leen fa fekk luy tudd taalibe ñette mag naa leen fa fekk ba Ceerno xëyee daaru gii di ñëw si di ñëw di di jëm si Touba baab ab baala àndaale baa buy dund ba mu dikkee mu jox ko Seex Mustafaa bu mu agsee toog lijjanti mbirum sëriñ bi taxawal ko lépp ba mu leer nañ téere yi nga xam ne moom la fi sëriñ bi doon bàyyi te daan ko jëfandikool boppam mu ni nañ ko xubus le bàyyi ko fi mu nekkal fi yoon wi yëpp ñu fab ko def ko ca magasin bu bu ci daaru Xudóos yeddu jaañ mu teg ko fa ngir mu waroon a saytu téere yooyee ba loolee amee nag mu ne nag damaa bëgg nu waxtaan tey daa di tudd kilifa ga nga xam ni moo sës ci moom muy Cheikh mu daal ne ko euh, nan nan jàpp sëriñ bi te te doyloo ko sëñ ma numbe sës ca mu ne ko ma numbe mu ne ko mbakke mu ne ko demal liggéey boo liggéeyee ba liggéey bi sont nga indi ko fi nga ko daa indi boo dikkee koo fi fekk nga jox ko kooku kon ñan ñan ñoo ciy des taalibe yi Cheikh Ibra ci mag ma nga fa toog mu ni ko Cheikh Ibra yow it wanee la yoon ko daan gis ba gisatul kookaa mat a gën a wonu yoon lëndëm gi fi sëriñ bi bay moo gën a metti lëndëm gu jëkk ga gannaaw sëriñ bi ba ko nit ñi xamagul yaa ko wane ba nit ñi xam ko wonal nit ñi fi ñuy jaar daal di joxoñ ci mbir mu saw mu dégg ko ñaar loxoom loolu mooy fondation yoonu mu kon xam nga sëñ Fallou topp ci ak sëñ sëñ Fallou ak sëñ Basiru topp ci mu ne acca Mamadou Fallou yow ak Mamadou Bassirou yéene ci sës eh, eh, sëñ Mourou Moustapha doom yi mu jëkk sëñ Mourou Moustapha mu ne ko yow it Mamadou Moustapha yaa ci sës du yow a jëkk am baay bu baax ñàkk ko toogal fiite na ci li sa baay ne woon boo nekkee ci li woon boo sa baay nit ñi dañ teg fañ tegoon sa baay fi dëkk nag jërta xëccoo doy nit moo jër a xëccoo boo doyee nit ñi foo nañu fekk la fa loolu mooy dénkaanam Cheikh Moustapha daal di cay teg ni Mamadou Fallou yow ak Mamadou Bassirou yéene ci sës topp leen seen mag ndax noonu askanu suñ mbàkke morkat xajunu ci benn néeg waxuma la benn dëkk te loolu am noo ko amee ci topp suñ mag bu seen mag meloon nu suñ mag seen mag gën suñ mag bàyyi lii la maam Cerno dénkaane woon kero ci taxawal yoonu murit ji Moodu Moustapha léegi lay nettali sëñ bay xasiida goo xam ni ku ko gën a rafet gën koo neex amut mu wax ko ci borom Daaru Muxti wax ca wax yu yéemoon ak sax nag sëñ Fallu moom bayit yi yi mu wax ci moom xam nga siiw na ataytu ilal mi'taa fi daarihi al mu'ti li yushkiya shakwa al qabdi minni bil basti sëñ baara gis nga def na ci moom xasida gu yéemu gu rafet gu am solo wax ca waxit yu yéemu te rëy la njaboot gépp sëñ sëñ Tuubaa gépp jàppoon ak moom mu lépp doonoon benn ñu àndoon ñoom ñu jox ko cër bi nga xam ne moom la ko sëñ Tuubaa jox moom it mu leen xoole njabootuk ay maanaam ab sëriñam sëñ Mor Moussa yàlla dogal na nag la maam Thierno doonoon ci moom lépp da ko nangu woon jox ko ko di ko doxal moo Mahmouda nettali na ma yàlla yàlla dolli leeram nee na ma bi nga xamee ne dañoo toog ab diir boo xam ne waxuñu dara ci liggéey jumaa ji sëñ Manoune Sarr dafa ñëw daaru ne maam Thierno dama ñëwoon di la siyaare si ak di bugg laa laaj ba xam liggéey bi sëñ Tuubaa battale woon da nga caa xam lu tax. Eh, waris ya daal di taxaw léegi dañuy nekk nangam wala de wala sëñ bi da ko lu ma bëggoon waxtaan ak yow mu ne ko ah déedéet déedéet dara mu ci liggéey bi kay nam ko digle woon nara man it la ma ci jàppoon moom la ci jàpp dafa tolloog nag nit ñi seen wax damaa bëggoon ñu bàyyi ba wax ba ba teeral rek ba xam ne mënuñu ci wax mënuñu ci yàq dara ma soog a wax la may wax waaye boo demee nekk ca sëñ Fallilou moom waxaalee su ko moom sëñ Fallilou moom da da doon péeteem da doon péeteem Euh, sëriñ bi jéeyaali ji na ak boroomam niñ koy waxe moo di ne euh, wan nañu ginnaaw sëriñ bi di borom daarul mooti dellu si nag ci barab bi mu ko sàkkaloon muy daarul mooti gile waxat wax nag ne duutuma ne kenn asalaamaaleykum wa aleykum salaam rek laa dee deeti wax loola mooy xam ne euh, sëriñ Tuubaa mi nga xam ne moo yelloo woon loolu ci moom gisatu ko kon nag kenn ku mën a doon ku nekk ak noo mën a toll mi ngi toog di la déglu soo ñëwee lu mu war a wax ak yow lu mu war a def ak yow dina ko def ak yow keneen ku mën a doon ku nekkit boo ñëwee lépp loo xam ne loo soxla woo ci moom la lam ca war a def dana ko ca def noonu la fi nekkee ba mu neex sunu borom. dañu toll jamono joo xam ne li ma waxoon sax ne la dafay gën a fës ci jamono ji ñu bu demee ba jamono dem ba kilifteef di jeex bu ñu ba jamono joo xam ne respecté kilifa day waaj jeex. bu demee ba jamono joo xam ne nit ki ndigal moo koy tànnal boppam loo koy digal bu ko neexee tànn la ko neexee def ko la ko neexul bàyyi ko boobaa nag fàttali ko maam Cerno day day boobaa fàttali ko maam Cerno Ibrahima dafay jot sëkk sëkk sëkk am na lu bees lu xew loo xam ne euh, ñun ñëpp seetlu nañ ko ci yëf yi yoon wi nu muy doxee mooy ñi bari mbooloo nangootuñu topp kenn nangootuñu dégg ndigalu kenn ñi bari xam-xam nangootuñu topp kenn dañoo tuñu dégg ndigul kenn ñi bari bari alal nu nga tuñu topp kenn nu nga tuñu dégg ndigul kenn may wax ne maam Cerno Ibrahim yi ma wax yëpp daje woon na ci moom borom mbooloo la woon borom xam-xam la woon borom alal la woon ay jamonoom képp koon alal ay jamonoom képp koon xam-xam ay jamonoom képp ko mbooloo waaye mbooloo moom ak xaar xam-xamam boobu ak alalam jógu teew woon ko dox digganteem ak déglu ndigal teew woon doxutoon digganteem ak nangoo déglu euh, nangu kilifteef kon sëñ Babacar nga na sëkk maam Cerno Ibrahima roykaay la boo xam ne képp ko xam ne bëgg ngaa aw fi sëñ Tuubaa bindee fi aw fi nga nga roy ko ci doxinam woowee diggante sëñ Tuubaa maam Cerno daal sëñ ci Babacar ci gàttal mooy kii suñ ki suñu borom yëpp di ko liggéeyloo jël jëruñ teg ko jotam ne ko moo moo jàppale liggéey bi bu liggéey mën a àgg fi nga bëgg liggéey bu ñu fi doon wax fii ba suba ci Cerno yi du jeex waaye daal mooy jëwriñu sëñ bi di généralam di rakkam di taalibeem bu ko gëm boo xam ne yemul sëñ beeg dara sëñ bi jëfandiku ci moom loo xam ne ay tegin mayut nga ne jëfandikoo ci kenn waaye bëriwul ñu ko jëfandiku kooku mooy Cheikh Ibrahima yàlla na yàlla tas si barkeem.